bëgg nag mooy nga dooleel ñu ñaanal ñu jot ci réew mi liggéeyal Sénégal suñu yéene ci réew mi ñu mën ko dox ba mu mot ndax jàmm ji law fépp teraanga gi law fépp ba Sénégal gën a jëm kanam lii mooy suñu yéene ci réew mi te pour ñu mën ko doxal faaw ñu jot si kon xuloowuñu si xeexuñu si waaye yéene bu rafet boobu daal lañ bëgg jottalil Sénégal te xam nañ ne boo ñu si ñaanalee incha yàlla mën na koo yombaloon lool Mbàkke moo moo waral tànk yi naaw bu ñu ñëwaatee feddale la suñu taalibe ak suñu njëb sëriñ bi nee na président jaajëf nee na li nga baax bëgg lu baax rek la bëgg lu yaatu bëgg loo bokk ak ñépp nee na loolu dara gënu ko nee na fii nag moom fii mooy yaakaaru réew mi ci lu wér nag nee fii yaakaar du fi tas nag képp ku fi dikk la la tax a jóg lu ne yaa ko xam boo ko doxee na nga ko war a doxe wax ko jëf ko yàlla dana la ci dimbali nee na loolu rek la ndax réew mi ñépp ko bokk ndax sëñ Touba ndax sëñ Touba ne fu ne fu fu dara nekk fu ne rawatina Sénégal gi rawatina Sénégal gi nee na loolu sëñ moo ko moom. ci lu wér. kon nanu am yaakaar rek. ci li nu bëgg. mu te wut ko. wutiin wu rafet nag. wu ànd ak jàmm. ak teey te xam ne. ku ne nga bëgg. yaa ko xam. sëñ Touba nag. nee na kenn mënu ko nax. lépp lu bëgg. te mu tax laa jóg nga dikk ci moom yàlla mën na la ko may kon nag nanu lu bu baax rek xol yi nekk benn bëgg-bëgg bi nekk benn réew mi nekk benn jàmm ak salaam nu am ko nan ko bëggee fin ko bëggee yàlla mën nañu koo may kon Macky jëf ak ñi nga àndal ñépp nee na àddina nag moom amul solo luy jeex rek la waaye nag bëgg-bëgg nag moom mi ngi fi pas-pas mi ngi fi te lépp lu waay yéene te muy dëgg ci yow bu boobaa yàlla mën naa def nga am ko kon nag li nu bëgg te xalaat ko te yéene ko faw te muy yéene joo xam ne ji. dañ koo fas ci suñu xol. du ànd ak xuloo. du ànd ak xuloo. bu ànd ak yar. bu ànd ak yar. ak teggin ak réew mi. réew mi. sëñ Tuubaa mi ko moom. ndax ku ne am na fi cër. waaye nag. waaye nag. waaye nag moom sëñ Tuubaa. daa bokkul ak nit ñi. gannaaw bokkul ak nit ñi. nekk benn. ànd ak jàmm. ànd ak jàmm. jaamu yàlla. te muy dëgg ci yow. loolu mooy li sëñ Tuubaa bëgg. ku ko fi def nag. yàlla dimbali la rek. loolu mooy mooy li nga xam ne. moo ci am solo. leneen amu ci solo. lu dul loolu mu wax rek. nee na loolu rek la bëggoon a xamal. kon nag nan jàpp ci loolu rek. te am yaakaar. te bañ a xuloo bañ a soow bañ a xeebaate lépp nekk benn rek te jéene ci di jenn wasalaam tàllal la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaaru xaaluhu ñeel na sëriñ baara